kër waaju baax kër waaju baax gisuma feneen fu ko dàq kër waaju baax amul leneen lu ko dàq kër waaju baax kër waaju baax gisuma feneen fu ko lu ko dàq am na loo xam ne buñ ko sax di tendeefal kër gi xam nga ni mu demee tos rosa gita cëd ron git gita rosa gita sa pat gita gita gita gita ron gita gita gita cëdal cëdal jël wala la ak juróom ñaari bulet non juróom ñett teg ci beneen jeex kon yaa ko ca teg maa ko nan ko ci def fu ñu jëm am dara ñu am lu ñuy def suñu biir bi yaa ma gën xam ah kër gi yaa ma gën xam de xiifa lay rey noonu la demee nekkee paa bi maam sama maam dem na. keneen ka dem Morgan xaw ma day. non moom bëgg na. jaaytaama bëgg tons bëgg na waaye bu dafa amul doole ji. amul doole ji yaa tons moom bëgg na mais amul doole ji. amul doole gi su doon dox 100 pour 100 moom yaa ma gën a xam mais yaa ma gën a xam mais daal lii la wow. mais maam xanaa da nga doon simb wala da doon mené ba. Oh, gaañ nañ ko de mi ngi gaañ. xabaala xam. maam booy xabaala xam. ay gin jërës gin jërës gin jërës. ak nga dégg xoolal sa wax ni xabaala xam. maam booy xabaala xam. ay gin jërës gin jërës gin jërës ki tekki di jërës. maam xabaala xam. maam booy xabaala xam. ay ay gin jërës ki tekki di jërës. ay sunu aar moo la topp maam. ay bàyyi ko ay la nag sax bàyyi defal yërëm sa maam gaañ na de man maa ngi koy maam mais naa gaañ na de gaañ na de baal ma dama bëgg mu gaaw rek nga may fóosati baal ma de nga may fóosati dama bëgg tëj toogaay bi gaaw oh. lan la kamal def nii maam lan la ah, day dara ñu ne série pelandi si dañu série séeri ngay gañee nii. dégg nga da <laughs> doon séeri wax nu lu xew rek. waaye eh, dañu doon séeri. Ah, ah kon baax na. ah man lay bett. lan ah, naaj ngay séeri mu def la nii nga ni da ngay séeri. naaj man lay bett. kii paa naaj la doon joteel. kon duma paa naaj xam naa ko. dama ko ma fayul ku lay fayul. waaye am sët xeexee mu sët. maa yow na soxol seet an samay daal. ah man lay bett. dama bett noppi rek. moom xam nañ ni jàmm waaye da ngaa néew doole mam. Eh. soo néewee doole. jaas nan dem amañ dem ko fajal yow toog rek nos dejes.

allahu akbar waay waay waay waay xaj ki yéen àndalee xaj waaw ma def lii ñan la waay baax la bil day lii sati baax la génn ma ci lan ñëwaat lool nañ ma waay waaye ñëwaat lool nañ ma waay ana ngeen amul moye bëgg a dem allez allez allez tool bi. dar na dar na dar na bëgg na doom mbalu ko. kër waaju baax. maam. Ah. xaw nañ koo rey. maam sa waay moo ko sotti paanu mani la. mani moo tax tey. Uh-huh. dina reen na xanaa. waaw ah, moo tax dañ laa génneel fecc si yoon bi. ah def de. <laughs> gisoo maam xanaa dina reer. kin gidda fayul na la kin gidda. Uh, uh. ay ay dina reer. ndax gañe nanu. moo uh, ay maam dina nu ay. ay ay ay moo woyof over there. Away, away, dootoo ko defati. Ay, ay. Mama is dootoo ko defati. Ay, ay. Mama is dootoo ko defati. Ay, ay. Mama is dootoo ko defati. Ay, Dootoo laal sunu maam yi waay. Ay, Dootoo laal sunu maam yi. Kër waaju baax. Kër waaju feneen fu ko dàq. kër waaju baax amul leneen lu ko dàq kër waaju baax kër waaju baax